ba li nga xam ne yéene na ko liggéeyal euh, sëriñ liggéeyal lislaam ci toolub Cheikhul Xadim liggéeyal Cheikhul Xadim ci toolub lislaam suñ borom may ko kàttan mu def ko ni mu ko bëggee te ànd ko mboo ak mboolem bokki taalibe yi mboolem njaboot bi di am mbégte ci jataay bu tedd bii ci ndigalul sëriñ bi li ko waral defe naa ne leeral nañu ko dafa am mbokkum taalibe soxna Sooda Xumma ànd ak njaboot yi nga xam ne ñoom la bokk di liggéey ñu ñëw bëgg a tàmbali seenub liggéey fii ci daara ju am solo ji nga xam ne wax nañ ko léegi waxati ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa daf ko yëkkati ngir bàyyee ko walla yeggalee ko liggéey boo xam ne dafa bokk ci lii sunu borom subhanahu wa taala may Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu am na bayit bu ñu daan jàng xaza inu rabbi futtixat lii wa zaxzaxat li xayril ada dunia wa oxra wa barzaqu dafa mel ni sunu sunu borom dafa jox sëriñ bi li mu yittewoo lépp du ko ubbil magasin bi ne ko lu la soob rek tànnal moom nag mu tànn lépp waaye lu ci ne dafa am waxtu bu waxtu wa jotee rek loola taxawaay ba day yomb kon lii dafa bokk ci lool yi ku gis jumaa ji ba sëriñ bi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ko tabax booba moom moo xamoon ne jumaa ji dana am waxfir li man banaw binaaha rafia waxfir li man amarahum bihi jamia wa li jamii man aanahum ala binaiha allazi bi fadlika atala kon loolu ba ko sëriñ bi ñaan ak bi jumaa ji noppee am na diir kon bu sëriñ bi waxee ne sunu borom defal na ko jàngukaay boo xam ne fépp fu nit bëgg a amee xam-xam bu am njariñ mën nga faa bàyyi ko ñëw jàng si ko fa boo noppee nga delluwaat yaatal ko foofa ba ñëpp mën caa jariñoo bayit woowu ba ko sëriñ bi bindee yàgg na waaye wóor na ne dana dana am incha allahu taala nii nu gisee jumaa ji mu taxaw waaye lii nag ci yoon wi la nekk yàlla na ko Cheikh Mamadou Mountakha yëggale ñi ko fi jiitu woon tàmbali ko mu ñëw rek ne damay sof foofa ku ne xam na ni barab bii Cheikh Abdoulaye Ahad moo ko waajaloon turu université ñëpp dégg nañ ko ñëpp nañ ko lu yàgg lool boobaag léegi defe naa jege ni ñeent fukki at waaye gis nga bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëwee ñi fi dox ci diggante bi kenn ku ne def nga liggéey amoon yéene ba naal ba ba tudd lii waaye sunu borom dogal nag moom mu ñëw ne ci la bëgg a tàmbalee ab liggéey bi mu ko tàmbalee nag li ñuy wax lu jot rek rawatina mbirum sëriñ bi ya koy def yëpp day mel ne day day day day dajaloo bi mu ko wootee ñëpp dañoo maase ci àndandoo ci liggéey bi def ko muy seen yitte waajtaay wi nga xam ne mooy waajal jàngukaay bi buñ doon seet ni mu baaxoo am waroon naa am gën ngaa néew ñaar jëm ñetti at ndax système éducatif li sëñ bi defar wala wala wala modèle éducatif boo xam ne lépp dañ ko tabax ci njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu ñu tàmbalee ko ca suuf ba ca kaw diggante bi ñu ko def jàpp naa ne bu fekkoon ne ci ni ab liggéey baaxoo doxe la dana am ñetti at jëm ñeenti at waaye matul sax at ñu noppi ko sëriñ bi daal di tàmbali nag liggéey bii bi mu ko tàmbaleek léegi defe naa ne yàggagul waaye ku fi ñëw tey da nga xam ne macha allah mi ngi dox bu baax li ko ci ñii nga xam ne nii la soxna Sawda di def tey jii boo nee diis tuuti ca kanam da gis bâtiment yu mag yii ngay jàkkaar lool nga xam ne moom la moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox Serigne Abdoul Ahad Ka mu di ko defar moom itam ñii nag kenn ku ci ne da sasu nga xam ne li ciy dem moom yow yaa koy defal sa bopp yéen li nga xam ne mboolem taalibe yi ñu ngi koy yët sëriñ bi tam wax ne moom amul benn yitte bii lépp lu ñëw fii la koy def mooy bâtiment yi ngeen di jàkkaarloo defe naa nañ ca waxe woon déggoon nañ ko ñoom itam tubaarkàlla seen liggéey mu ngay kii bu baax seen naaj fi sëñ Fallou Xuma ak sëñ Moussa ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la ñu ñoom lañu ñu ànd sëñ sëñ sëñ sëñ daam bay ñoom buñu jàllee ci kanam tuuti moom it dañuy gis waa xisbu tarqiya ñoom itam gis ngeen sasuwé yi nga xam ne tobbil na sëriñ bi tobbil tobbil nañ ko seen bopp ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi jox leen ko muy li nga xam ne moo aju ci këru xasida yi nga xam ne nun sax li ñu wax sëriñ Tuubaa moom lu ne moo koy defal boppam ba xalaat jàngukaay bi boolewuñ ci woon loolu waaye dégg bi fi sëriñ bi ñëwee di ko nemmeeku si na nga xam ne waxe na ko ko leeral ko ko ne leen borom liggéey bi moo leen ko ci cërale loolu sëriñ bee ko wax kon lii la sëriñ lañ bëggoon bu ñëwee ngeen gis liggéey bi fi mu toll xam ne kat Pastef da cee feeñ nun ñi fi ñëw ak dem day waxtu wu ne dañuy yéemu ndax fii rek bi ñu fiy ñëw ci koor gi doon tàmbali liggéey bële booba defe naa ne liggéey bi sol ak ak seegutoon fii waaw sa waaw sëñ Fall waaw wax naa ko léegi waaw Touba ca kanam la ma sëñ Fall ganas di def eh, kii moom itam lañ fi def boo xam ne bâtiment baa ngi nii ñu jàkkaar loolu waxoon naa ko ñu ngi ci ñetteelu niveau bi yaakaar naa ne kon day wane ne rek yoonu murit waxtu wane sëriñ bi day wane kéemaan goo xam ne noonu dañ ciy gën di yëmu ndax fi jamono toll fi jamono toll waaye liggéey bi dafa mel ne sax jéego yi mu doon dox dafa gën a gaaw kon sëriñ bi dafa bëgg bu ñu noppee ñu dugg ci biir liggéey bi xool ko xool fële ñaan sunu borom yeggale ko ci barkeb sëriñ bi kon ñu ngi leen sant di leen gërëm tàngoor bi moo tax xam naa Cheikh Mahamadoul Bachir dana dana dana yeggale li des ci kàddu yi waaye sëriñ naa li mu wax wax ko ci turu Cheikh Moustapha moom sëriñ Abdoul Akram wax ko ci turu sëriñ Cheikh moom sëriñ moom itam mu ñëw ànd ak mboolem njaboot gi sëriñ Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous moom moo fi jiitu sax moom itam te defe naa ne ñeenti weer a ngi ni yoo xam ne génnul waaye yitte joo xam ne lii yitteel na ko ko ak ndigalul sëriñ bi moo tax ñun ñëpp ñëw teew fi ak mboolem ñi nga xam ne lim lañ leen damay bañ di limaat ñëpp tudd nañ leen ñi nga xam ne jotuñu leen woon ak itam danañ leen kiyaar di sant ñi nga xam ne itam mooy ci njiitul sëriñ maam Thierno ni ñu ko waxe woon ñoom la sëriñ bi jox euh, ñuy too wàllu technique bi yor contrôle bi ak suivi bi ñoom itam ñu ngi leen di sant di xam ne ñu ngi laxasaayu waxtu wu ne amuñu noppalu guddeeg bëccëg di dellu rek di la Cheikh Mahamadul Muntaqa sunu borom bàyyi ko fi tamay ko wér di wax itam mbokki taalibe yi yoon waa ngi nii rek képp koo xam ne daal tàmbali woon na na yokkaat koo xam ne tàmbalee bu toon na ñëw ku ci nekk fa dooleem toll rek ndax sëriñ bi daa wax ne moom du sas du tobbil kenn mu sas waaye liggéey baa ngi nii di liggéeyub sëriñ bi ci toll bi bëgg nag ñëpp gis ko kenn ku nekk rek sa kem kattan nga ànd ak caag moom te xam ne denc la bu du yàqu lañ ci tax yàlla nañ ci taseeg tawféqi sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu